ndaw ñi ak enveloppe bu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar gouvernement bi fas yéene itam dugal loxoom bu baax a baax wala wéyal lépp lu ñeel wàllum social ak prévision yi ñeel alocation programme bourse de sécurité familiale bi nga xamante ne jagleel nañ ko fanweer ak juróomi milliards ci suñuy koppar couverture maladie universelle tamit noonu ak lu toll si ñaar fukki milliards ak topp ci suñuy koppar. jaajëf Safiatou Ba Ndiaye dañuy daal di dem nag teewlu li nga xam te moo di xalaatu askan wi. ak Cher TV ñu ngi leen di nuyu di leen marché wu di di xamal di xamal ñaar ñaar ñaar ñaari ñaari ñaari baat rek mooy lan mooy ñu tëj compte jàmbur yi xanaa xamuñu ne avant ñu ngay tijjee dañu doon dund seen teey bakkan bi nga ko tijjee di ngeen continuer dund seen teey bakkan te dinañ dem bàyyi leen fi ngeen di dund seen seen teey bakkan benn suñu président ñu sénégalais mooy suñu noon deuxième bi président bu ne ñaan nga yàlla booy dem am bàyyi fu waay bu rafet yàlla yàlla defal Sénégal yëpp jàmm teen bàyyi dee média dee média bàyyi am am am jàppal bàyyi am jàppal dee média bàyyi leen doomu jàmbur ñu liggéey liggéey lañ gëm bàyyi leen ñu liggéey ku am ak bugaan problème nga dem rek topp ak bugaan waaye bàyyi leen presse bi ñu liggéey bàyyi leen presse bi ñu liggéey wala ngeen bàyyi ñenn presse bi ñu liggéey mbokki Sénégal yi na ngeen maa mbaa yéen a ngi si jàmm man la Néné Diallo dëkk Gambie waa Ziguinchor la waaye maa ngi dëkk Gambie di naxaroo lu xew biir Sénégal muy bloc contre Bougane Gueye bi naxar nañ ko lool mitti na lool parce que suñu fay liggéey suñu mbokk lañ ah, ay ay sénégalais la ñu fay liggéey Macky Sall dama lay ñaan yow mi suñu président bootee njaboote ñooñu sa njaboot ñoo fa nekk bu leen jël politique di ko dugal si yëfu ay ay liggéeykaay parce que ñii dañ war a fayeeku am dundal seen njaboot wala toppatoo seen la ñaan ngir yàlla ak yeneen léegi lii li xew nii ñaan naa la ngir yàlla li ngeen war a def ci politique ngeen def ko ci politique ngeen génnee lii seen biir lii Sénégal la Sénégal yaa ñu bootee njabootu ñu lépp lu rafet rek seet ko nga def ko loolu laa lay ñaan nga xool lii bu baax nga segg seggaat nga xool ndax li nga leen teg na neex na parce que yow mii boo ubbiwoon télé wala rajo ñu teg la lii loolu du rafet lu rafet ci réew mi nañ koy def dañuy def lu rafet ci réew yal na la yàlla may jàmm may Sénégal jàmm may Afrique bi yëpp jàmm. salaamaaleykum wa rahmatulah waa D-Media waa Sen TV man daal mbele na am doon gërëm goore dan ko taki état wi en udd D-Media ah ɗum noon maa ngi koy wax ci pulaar nag jaay doole boobu pour lan la ah mais loolu rafetul Bougane Gueye ci dëkk bi la dëkk ah moom dafa liggéey ba am lu mooy am moom moom Bougane Gueye maanaam lu muy def ci dëkk bi état bi kenn defu ko parce que moom dafa am employé la yor ah, ay nit yu bëree bëri di leen liggéey mais loolu rafetul quoi loolu démocratie mais loolu loolu dafa ñaaw quoi dafa ñaaw gars yi nañuy bàyyi télé bi ñuy liggéey nañu bàyyi gars yi liggéey xam nga bu dee nii la moom dekk bi du mos avancé mukk jaay doole bi ëpp na trop trop trop trop saa nañu bàyyi gars yi liggéey seen TV ñu ngi liggéey ñu ngi def ah ñun seen bi rek la ñuy béggee billaahi wallaahi gars yi nañu bàyyi li ñuy def jaay doole bi ëpp na quoi. mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu bu ñuy perte la amal ñu njëriñ en tout cas mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu des si mbir moomu donc loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu mu ci. waaw euh, comme président nee na ñetteelu mandat du am xëy na moom def na ñaari mandat woon 2024 bu jeexalee question bi ñu koy laaj mooy Ablaye Wade bi mandat am di bëgg a jeex 2012 la ñu ubbi leen seen TV ñuy planifier di orchestré ci nguuru Macky sàll pour tëj seen TV ak presque cent emplois yi fi nekk question de euh, conscience ak tranquillité bu fekkee moom ak njabootam antan nañu loolu. nañ ci dem de toute façon mooy euh, comme ni ko sénégalais yëpp waxee ñi seen vidéo mën a si ñi seen vidéo mënut a si wala ñi seen vidéo ëgsi te amuñu temps bu ñu ko jàllalee moo ëpp fuufi ndolle ci yëf yi kenn mënu ci génne jaay doole acharnement mais maa ngi dànkaafu surtout inspecteur impôts et yi nga xam ñoo ñooy orchestré lu mel nii duñu ngi continué wul de te nguur dafay changé te ñoom dañu fi resté te ràññee nañu seen ay position ci wàllu politique ndànk ndànk dafa baax waaw je pense que am na loo xam ni euh, daf fi nekk te tant que loolu mu ngi fi du fi lii am ni du fi jóge beneen nguur bu ñëwee dina defaat lu mel nii walla lu ko raw moi je il faut ñu dindi le présidentialisme fort bi am Sénégal loolu mooy combat bi parce que kii toog falu comme mënti doon opposant yeeg ñëpp ku fi toog ci condition yii amaat les mêmes pouvoirs décisifs discrétionnaires sa signature di compter plus que ñëpp amul procureur bu la mën a arrêté la amul kenn ku la mën a nga nekk buur soo nekkee buur loo neex def ku la nekk conditionné donc lii am nii DG wax wax nañ ci ci ci Wade ci keneen keneen bu ñëwee avec le même système présidentialisme fort bi nekk fii it will be the nii la ñu kaa dundaatee euh, il y aura peut-être Bougane ci nguur Macky Sall nii ñu tëj ñu tëj ko il y aura quelqu'un d'autre ci beneen nguur ñu tëj ko et ainsi de suite il faut que ñu dakkal loolu loolu nag opposants yi seen bopp war nañ ko mun a xeex mais regardez bien les opposants personne ne dénonce ce présidentialisme fort pourquoi parce que demain vous êtes appelé à prendre la place de Macky Sall et peut-être devoir en profiter combat bi mooy opposant yi taxaw ne présidentialisme fort man bu ma faloo dinaa revoir la constitution sénégalaise par rapport ak loolu pour que données yi changé incidence bi politicien jar naa déglu ci si biir réew buy jub ay combat bi foofu la nekk yàgg nañ ko def ay diggé yoo xamante ni Abdoulaye Mbow duñu ko respecté waaw euh, dëgg la yàgg nañu dégg ay digg yoo xam ne duñ ko respecté mais defe naa ni am nañu ñaari téere yoo xam ne buñ si sukkandikoo te ki ko gëm mën ko appliqué defe naa ni li paasante jooytu daa mën a changé mhm. lu tax dañoo am charte de gouvernance démocratique euh, jóge si assises nationales yi am commission nationale de réforme de gestions à travers ses conclusions mhm. ñaar yooyu yëpp Amadou Makhtar boo jiite ko ak ay boromi xam-xam defe naa ni ki nga xam ne candidat la gëm li nga xam ne moo nekk ca biir bu àndee réforme ñuy soxla si wàllu bi par rapport à l'hypertrophie présidentielle maanaam kii bi ma nga ca li nga xam ne moo di réforme dans le système judiciaire ak li nga xam ne moo di réforme euh, dans le système parlementaire lépp nga ci ak li nga xam ne moom la ñu war a doxalee ak kuréel yi nga xam ne war nañ ko mën a teg ko cour cour constitutionnel ak yu demee noonu yëpp defe naa ne daañu si mën a yegg mais li mën a am moo di euh, il faut que la réflexion également ñu war ko mën a élargir au niveau de l'espace communautaire parce que dañoo am protocole additionnel bu CEDEAO bu ne Euh, laata juróom-benn weer avant les élections waratoo soppi tant que amul consensus bi nga xam ne moom la acteurs yi waaye war nañu mën a am benn li nga xam ne moo di clause euh, euh, clause benn protocole boo xam ne c'est frappé de la clause d'éternité dans l'espace CEDEAO parce que dañoo nekk dans une zone sécurité eh, kii boo xam ne dafa am dafa ñàkk kaaraange si la zone du Sahel tey mu laalee terrorisme mais buñ si waxtaanee defe naa dans l'espace communautaire on peut arriver à bout pour mën a andi ay solutions Euh, définitive par rapport lii paasa di wax l'hypertrophie présidentielle ba nga xam ne daañu am un système beaucoup plus régulé mais lépp ci kaw jàmm ak waxtaan parce que encore le dialogue doit primer surtout mu nga kon jërëjëf Abdoulaye